ci turu jëwrin yi nga xamne ñoo yor liggey sëñ bas bi nga xamne moy groupe yi nga xamne ne ñoo dajaloo lëkkaloog suñ jëwriñ ju mag yi sëñ Fallou Thiam Lokman ak señ Abdou Khader toy ak señ Jabel ak señ saliw ak señ Mortala ñu ngi leen di siyaare di leen bëggee di leen wajal nak ab siyaar bo xam mom lañu waj fan yi yépp di wax ci groupe yi muy alxames bi ñu jëm bu señ touba tubaa ak le 2 ñu ngi leen ci wo yeen ñëpp di ci woon bepp soppé bepp ko xamanteni ni rek bok nga ci groupe seigne bassi rek soppé rek ñu ngi la ci wo di ñaan suñu borom yobbu ñu ci jamm ak salam incha allahu rabbi bu fekke dajé nañ fa ginnaw tuk san lañ fay bëgg dajé daje ñun ñëpp yaatal ak sëriñ bi mu ñaanal ñu waxtaan ak ñun ñaax ñu ci li nga xamne mom lañ nekk muy digënté nit akub soppeem kon dañuy seigne fallu ci am luqman mu ñew agalé kaddu yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di ziar te di leen nuyu te di leen fàttali suñ bisub soppe boobu yi muy bisu Cheikh Mahmadul Bachiru Mbacke xelkom jàmbari Serigne Saliou Mbacke jooju fàttali gi nag weesuwut ñun ñëpp ñu bokk ci yem niñ bëggee lu baax ñun ci suñ jëmmi bopp gëm ne it mboolem murid yi noonu lañ bëggee lu baax. yaatal gi ni ma ko daan waxee rek wut euh, yaatalu man xamila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa damay faral di wax ne nag sëñ Mbay Jaxate dafa am lu mu wax mu wax ne mbërëy kasaytug sa xaaram tey defar ak diw ku ñëw joxes lëf mu daat lay yóbbu yóbbu gu wér daal di wax ne moo tax mënaa la ngëbal mbër mbaa nga ngëb ko ca ngëb koo ngëb bu wér bu ñu koy yóbbaale yóbbu la far te yaakaar naa ne Cheikh Mamadou Bachir moom bëri na ci ñoo xam ne sama classe gii nii bëri na loo xam ne bu ñu ko waxee ak yow nga defee ne seenum dañoo jàng ba yey seen kayit te moom képp moo ko waral seenum jàng nag soriwut te ku ne xam ne ne nag mbooleem képp ku bëgg Cheikh Mamadou Bassirou damay wax ne loolu Serigne tubaa di wax ci tasawudu Chixaar naan faman tadaraka alladi xat faata min allaxa wa amral aw xaata jàpp naa ne ñi nga xam ne ñi ngi ko sopp te di ko teewlu jàpp naa ne wax jooju noonu gone yooyu taxut Serigne Touba wax wax jooju noonu ko alxuraan waxee nag yaa ayyuha allazina amanu xu anfusakum wa ahlikum naar sax na ci bu baax a baax a baax a baax ñu ngi koy ñaanal jàmm ak xéwal tey fàttali mbooleem soppe yi siyaar boobu nga xam ne mi ngi doon alxames dëppoo ak le deux bii ñu jëm ña ngi koy defee ca këram ga nga xam ne moo nekk ca yoonu Daaru Moxti yoo ca kër Sëñ Sidi Moxtaar ga ñu ngi koy fàttali ñëpp di ko fàttali jëwrin Cheikh Saliou Mbacké ak sëñ Mourtala ak ku mel ni sëñ Jabel ma nga xam ne moo ñu fa teewal bàyyiwuñ kenn dal yàlla suñu borom def jamm ak xewal ba ñun ñepp ñu fekk ko tal ko te mbooleem ñi nga xamante ni ñu ngi ci groupe bi képp ku gis wax ji it boo ko yaatal nang ko yaatal ndax comme ni mako waxé won ci jëm joju légui suñ may jaaxate mom dafa waxat né euh, bi mi wax naan ku duy biiram ak ndox aku ñam nelaw ba man di lu muy déti moté du muy déti woté te tasuf da dem ba ci biir muy wax né motax tax la defal mbeur mba nga def waayi mbeur ku dut mbeur du wayam na muy mucc xam man nak damay wax né dëggi dëggi njàngum Sëñ Tuubaa comme mënuñu koo xam te am nañ ko ñu ko xamal muy Cheikh Mouhamadul Basir ci yar ak ay teggin te Sëñ Tuubaa am lu mu wax ci euh, Masaalikul Jinaan wax ne fa kasratul xilmi bi xayri adabi jaalibatun illa al aza wa taabi daal di wax ne boo amee xam-xam te amoo ab yar doo jóg ci ay coono te ku ne gis na ab yar ci Cheikh Mouhamadul Basir bu baax a baax a baax léegi nag la ñu war a jëfee ak moom mooy sëñ tubaa dafa wax ni haqiqatu sukuri la man halima suhuduna min zil jalali ni xama deug dëggi cant nak mooy ki ngay cant lim lay defal man ngaa nekk naan alhamdulilah wala da nga ko waaye nag da nga ko war a jëf ba mu gis ko ndax buñu ñu ci alquran amna fuñuy fu day melni suñ borom loolu la fa ndax euh, yalla daouda ak ay ñoñam ba suñ borom ba nan leen ifal jëf leen ak tiant day melni kon dañoo fekkon rek ñu nan alhamdullilah alhamdullilah